bu Thiès ci garage u Kolando bi Alassane xaw ma ndax yaa ngi may seetaan ou pas. tenir nga fa réunion Alassane c'est qui la tudd Alassane la tudd numéro expresso la yor la commencé tenir na réunion garage u Kolando wu stade Lat Dior Parcelles bu Thiès foto na sama kër won leen ko nanga xam nag ne ne ngeen suba ngeen di xaar verdict bi génn damay ñaan rek di la ko ñaan xaw ma ndax yaa ngi may seetaan mais dimbale ma rek suba bu ngeen di ñëw sama kër yow na nga jiite boobu te boo ñëw na nga indaal si cercueil yi man bokkuma si ñuy menacé. yow ngay joxe leçon à la jeunesse. après ngay wax bi ma joxe mooy nañu mobiliser parce que le président a un bilan positif te du ñu nangu c'est criminel bëgg a jël dëgg di ko bëgg a jël fen di ko weccoo ki dëgg di terroriser nit ñi ngir bëgg a valoir seeni sos ak seeni fen loo xamante ne man li ma metti laaj loo ma ko li tax ma génn front de résistance nationale c'est des gens qui n'ont aucun programme Maimouna bi ñu dajee politique ba léegi nekk ci opposition bi amul programme bu ñu mës a posé Sénégalais yi te yenn journalistes yi duñ leen ko laaj pour lan Macky Sall rek ngay dégg nag Macky rek Macky guddi Macky bëccëg Macky guddi Macky bëccëg